C'est Abdoulaye Dieye, président du mouvement Siggi Jotna et directeur général de la société Socotra. avant tout damay njëkk a sant di gërëm ki nga xamante tey mooy sama partenaire di waa di ONG OWADAS ki nga xamante ni seen président moo leen représenté fii di Ousmane Diatta di liggéey liggéey bu am solo ci social mais aussi damay rafetlu la présence de l'imam ratib de Thiès imam Asbaru Jégén ak imam yi mu àndal ñëpp ak notaal bi nga xamante ne ñëpp ñoom ñoo nekk Thiès mais aussi di sant bu baax di remercier sama naataago yi nga xamante ni tey ñoo nekkandoo di liggéeyandoo si wàllu politique fii di cees ñuy def politique de développement mu mën see nommé tey sama frère di Babacar Fall qui est le président di mouvement Thiès sur les développement mais aussi di suñu nommé sama frère sama xarit di ko xamante ni li muy liggéey Thiès ñëpp xam nañ ko di le président Habib Niang mais aussi dama si am tey invité de marque di madame Ndiaye gay Williane di soxna ministre de l'intérieur ki nga xamante ni Thiès la dëkk bëgg Thiès ñor Thiès Thiès ñor ko donc moom mënoon na toog croiser le bras mais tey Thiès moo ko jor donc bu gisee ñu mel ni ñun di activé wu pour Thiès mën a kanam moo tax tey teewaayam ñu noté ko fii. mais aussi maa ngi leen di remercier aussi yéen journalistes yi yi tax yi ma jox tey opportunité ma taxaw fii di wax ak askan bi donc à chaque fois damay wax ni dëkk soo fi nekkee da nga war a chaque jour di laaj dëkk bi lu ma ko war a defal. Hmm. mais pas rek man lu ma waa dëkk bi war a defal. donc ñun looloo tax ñu ne dinañ indi suñu xam-xam indi suñu doole indi suñu alal bu jàppale askan bi ndax boo nekkee si dëkk yàlla jox la cër bu teral la da ko war a delloo askan bi parce que cees gi ñu nekk kat ñun moo ñu gis ñu juddu fii la ñu jàngee lu eh, fii la ñu yaroo fii la ñu màggee donc lépp lu ñu mën a am dañ ko war dañ ko fi war a indi te loolu ñu partagé ko ak la vision du président Macky Sall gis si moom mu ngi def ay képp képp laay kàttanam pour que cees mën a rayonner pour que Thiès mën a avancer pour que Thiès mën a jëm ci kanam donc nag ñun loolu kenn ñu ci xaar moo tax tey ñun en tant que en tant que chef entreprise dañoo am benn responsabilité boo xamante ni dañ ko war a joxe ci askan wi moo tax may ñaax société société privée yi ñuy dellu di jàppale askan wi parce que loolu dafa bokk ci seen cahier de charge mais la responsabilité sociétale de l'entreprise dañ koy dégg rek ci ay wax mais ñoom duñ ko jëfee donc ñun ñun ñun nag bu ñu boolee sunu en tant que président de mouvement de soutien ak en tant que chef d'entreprise moo tax tey ñu ñëw inscrire sur le social bu taxawu askan bi ndaxte le président Macky Sall ñëpp xam ni dafa woote année sociale te année sociale boobu kat ñun mouvement Siggi jot na dañ cee yàgg donc président su wootee loolu du ñu mën tey lu dul taxawal bés bi mooy organiser journée de consultation médicale en ophtalmologie ak joxe ay lunettes gratuitement donc je pense que askan bi soxla nañ loolu parce que tey les soins médicaux dafa seer Sénégal nit day bëgg faju doom lu mu faju donc ñun tey kat ñun les acteurs de développement ñoo war a jóg pour di jàppale askan wi ci loolu ndaxte président Macky Sall moo décrété loolu te képp kuy jàppale président Macky Sall dafa wara taxawee loolu donc tey looloo tax ñun ñu mën fee teew maa ngi aussi di leen euh, wax ni teewaayu madame Gaye Wilane ministre de l'intérieur li ko fi tax a teew mooy moom cees la dëkk di doomu Thiès jànge fi yaroo fi màggee yàggal liggéey si si développement ONG plan moom la newoon. donc tey mënoon na toog croiser les bras mais dafa ñëw ne kat ne na ñëw jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi parce que loolu la xam donc it moom tàllal nañu ko loxo pour ñu àndandoo si loolu pour ñu mën see liggéey. moom moo tax tey ñu koy sant bu baax di ko remercier. si teewaay boobu boo xamante ni moom teew na fi te it ñun suñuy action du yem fii parce que action yi commencé woon nañ ko bu yàgg parce que ku gis ni kat xam ni yàgg nañoo joxe ay don fële si mag de yàgg nañoo jàppale daara yi dafa yóbbu ay denrée euh, alimentaire et aussi di yóbbu ay ndimbal si jàkka yi je pense que ku bëgg a dimbali askan wi loolu ngay def tey sama naataango yi fi toog fii ñëpp loolu mooy seen mission. lu war ngeen taamu Iba Katiba pour def euh, waaw Iba Katiba man dafa bokk si man. tey ma duggee fii si école bi daf ma lu bari parce que fii laa defee sama primaire fii laa jànge te mu nekk e, e, école boo xamante nii dafa historique si man sa bopp sama gox la bokk donc it e, élection yi passé ah, am naa fi ndam loo xamante ni. depuis 15 an euh, camp présidentiel musu ko fee am te loolu kat peut-être man maa ji sama waa gox loo xamante ni loo xamante te ni tey moo tax tey ma am ma am ndam loolu donc tey ñun ëppkat yi ba la ñu am parce que man école bi dama fee bokk dama fiy jëf sama jëf du fi mës deñ parce que moo tax may woo waa Thiès di woo autorité yi di woo di woo société privée yi fi nekk dañuy taxawu askan bi di taxawu daara yi di taxawu école yi di taxawu imaam yi parce que loolu dafa am solo parce que dëkk soo fi nekkee da nga war a jëf ngir dëkk bi mën a jëm kanam. waaw loolu je pense que tey ku gis tey ñi ma taxawal nga xam ne ñun ñoo booloo nekk benn tey ah, ah, dañoo am benn cadre boo xamante ni tey ñoo yëkkatandoo di waxandoo di dóorandoo tey sama naataago yi nekk coalition benn bab benn du boo ko yaakaar tous les ministres ñëpp tey woo nañ ma war nañ fi teew peut-être xat-xat yee tax ñoom ñëw fi mais ñu ñëpp benn lañ ñoo yëkkatandoo ñoo yëkkatandoo di dóorandoo donc daal je pense que maa ngi lancer a un appel que nañu boole suñu doole boole suñuy force boole suñuy xalaat ngir benn objectif rek mooy président Macky Sall am ndam donc di lancer un appel encore à tous les leaders et responsables de l'APR ñu ñëw booloo ñu àndandoo ñu liggéey parce que teg tey ñun les mouvement de soutien nekk Thiès kenn mënul dem bàyyi ñu parce que liggéey nañ fi liggéey bu am solo ñoo ngi jëf ci askan bi ñëpp di gis donc tey ñun am nañ fi wàll si Thiès donc lépp lu ñuy nësër ci Thiès wala ñu koy bëbër si Thiès ñun ñu ngi ciy taxaw donc daal ñu ngi woote ñëpp pour les responsables yi nga xamante ni président daf leen a jox ay ndomba tànk yu yaatal mbir mi woo les mouvements de soutien parce que kat ñun am na mbooloo bu wóor bu topp si ñun te je pense que ñoom loolu ñu ngi koy doxal ba léegi may wax ak ni ñu ngi koy doxal mais dañuy gën a rek ñaax que ñu jéem a boole ñëpp boole suñuy doole ndax li ñu ñor mooy président Macky Sall ñu mën koo fal au premier tour ci élection législative euh, ci élection présidentielle yii di ñëw. asalaamaaleykum euh, man la Ousmane Diatta euh, maa ngi nekk directeur des opérations bu organisation africaine pour le développement académique et sportif mu di organisation bu ñu créer fële ci Amérique lu tollook ay at yu bari ñu nekk ay doomu Sénégal yu nekk bitim réew. liggéey góor góorlu daan suñu doole ut suñu ay pexe yu lew indi Sénégal bokk ak askan wi àndandoo nag ak ñi nga xam ne ñooy njiit ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci kanam pour ñu mën a def liggéey yu ni mel mu ni lu mel ni dimbali nii nii ci li nga xam ne mooy mbirum santé ci li nga xam ne mooy mbirum éducation donc comme yàllaa leen fi teg ñu am mission ñun tamit ñu am mission mooy jàppale leen pour ñoom ñu réussir seen mission mu nekk mission Sénégal yëpp comme ñoom nag la fi yàlla teg dañ leen di jàppale àndandoo ak ñoom ci liggéey bi pour dimbali askan bi est que mën nañu xam waaw bilan bi ñu ngi indi ay ay ay différentes euh, spécialités parce que am nañu lu lu mel ni ophtalmologie nga xam ne dafa nekk loo xam ne maa ngi ciy wax keroog ak ministre de la santé euh, mu nekk un problème bu majeur pour euh, vraiment le Sénégal pour les politiques déjà instituées du Sénégal mu nekk politique de santé euh, moo tax ñun ñu ciy yëngu lu bari bari bari boo xoolee ophtalmo ñu ngi yore lu tolloo presque dix mille paires de lunettes médicalisées yore scanner di wër moom ci biir dëkk bi fu nekk ñu dem fa pour taxawu askan bi donc fii Thiès tey jii euh, ñu ànd ci ak Ablaye Dieye boole ko ak ay médecins yoo xam ne dinañu caytu mbirum urologie ci feebaru jigéen di def dépistage cancer du col de l'utérus di seet ci xale yi def un la consultation général di xool ci mag ñi nga xam ne dinañ wax un la gériatrie donc kon liggéey bi euh, yaa na yaa boo xam ne ku ne fii nii di nga ci gis sa sa bopp euh, ma di wax ne li tax ñu ñëw Thiès Abdoulaye la Abdoulaye suma xarit la nekk suma wëlëre dama Ousmane dama bëgg nga ñëw ñu ànd liggéey liggéeyal yàlla jàppale askan wi ñu ñëw fekk fi ay wëlëreem ñoom euh, monsieur Fall mi taxaw ñoom Habib Niang ak ñoom madame Ndiaye vraiment li madame euh, le ministre Aliou Aliou Nguy Ndiaye ñun ñëpp ñu jàppandoo dóorandoo defandoo loo xam ne léegi léegi léegi nii di nga gis njëriñ bi léegi parce que léegi nga gis kilifa yi ñëw nañ fi léegi ñoom imaam yaa ngi nii toog di euh, yore seen téere yoo xam ne mënuñu ko woon liir nga ñëw ñu consulter la jox la lunette nga mën koo liir léegi. defe naa loolu impact boo xam ne impact léegi léegi la te loolu moom mooy yéen seen taxawaay moo tax ñun ñu ñëw di leen ci jàppale en tout cas euh, ngeen xam ne euh, OHADA c'est structure bu mag boo xam ne bii lii rek la ñuy def liggéeyal yàlla àndandoo ñi nga xam ne dañuy bëgg dimbali askan wi ñu àndandoo jàppale nit ñi ñi nga xam ne nag yàlla leen jiital ñu àndandoo ak ñoom jàppale leen dooleel leen seen mission ñu mun ko réussir xam ne seen mission mooy sunu mission di mission njiitu réew di mission ñëpp ñi nekk ci gouvernement pour que lii mën a nekk loo xam ne luy jëriñ askan wi la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala waaw man Babacar Fall laa président du de euh, Thiès sous les rails du développement et président directeur général de BF Trading li ma bëgg a wax rek mooy bu ma nuyoo ñi fi teew ñëpp à commencer par les imams qui sont ici qui représentent quand ñu ngi ci weeru koor ñu dagg seen yite yëpp ñëw fii ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax baax di remercier euh, population ces di remercier ñi nga xam ñëpp ñu ngi fii ci école Iba ba école mon frère et ami Ablaye Dieye wax na ci lu bare bare bare di remercier aussi mon frère et ami Habib Niang di remercier aussi euh, donc celui c'est ce qui représente donc l'OADA ici les partenaires donc de euh, partenaire donc euh, Ablaye Ablaye Dieye li ma bëgg a wax rek mooy wax naa ko yàggul te du ma deñ di ko wax ku gis nen di nen a ngi loolu nag dina am ñu mu neex dina am ñu mu naqari ñi nga xam ne ñu ngi teg loo xam ne nit ñi mën nañ teg seen bët yàlla euh, donc nattowuñu ñu gis dëgg di ko nëbb ruus nañ ko li ma bëgg a wax aussi mooy ñun du ñu ñun ñëpp président de la République la ñu jàppale ñi nekk ci APR ak ñi nekk ci mouvement yi bu ma sañoon tey ñëpp dajaloo man mi dama am activité yu bëree bëree bëri li tax ma ñëw fii bàyyi activités yi dama rus rek ñu ñi fekk mu fekk ñu ma fi ñu ne ana Babacar pourtant day bis bu nekk moo ko Abdoulaye ñu ànd rus naa ko fële samay ñooñ lañ dañ ma comprendre mais ma ñëwul woon fii tey heure bi ñeneen ñi xëy na Ablaye dina comprendre mais ñeneen ñi ma fi gisul nañ ne kii lu tax ñëw fi loolu moo tax ma njëkkee fi bu fi njëkkee aussi vraiment aw ma kersa si ñëw fi parce que gis naa li Ablaye Dieye liggéey lii nii nag damay ñaax ñun ñëpp a commencer par moi-même moo jeune frère Habib tous les gens Mamadou ñu ngi devait être là ñun ñëpp ñu ñu ànd ñu booloo liggéeyal président Macky Sall te liggéeyal président Macky Sall mooy action yu mel nii. parce que nit ñi aussi kenn mënatu leen nax kenn mënatul nax nit ñi loolu c'est fini parce que nit ñi aussi ñu ngi ci 2018 kenn mënatul toog ba mu neex leen ngay ñëw ni bon ñëw leen ngay wateel ma nit ñi wateel leen nga après nga dem sa loolu mënatul nekk c'est fini donc lii ngay def da ngay ànd ak nit ñi dañ ni euh, jooto joote euh, jokkoo moo koy jiitu Ablaye nag li mu def mooy dafa jokkoo ay mbokkam dafa jokkoo ak ay mbokkam bis bu leen soxlaa ñu ñëw fekk si ko donc loolu Ablaye ñu ngi la ciy félicité chaleureusement c' est ngay def bu ko ñëpp defee incha allah président du am benn problème pour jàll au premier tour aux élections 2019 je vous remercie. Euh, vraiment tey maa ngi kontaan bu baax tey si invitation bi nga xam ne mon frère euh, Cheikh Ablaye Dieye euh, yàlla dafa def ni ngi doog bu ñu xamante sax yàggul mais gis naa ne moom ñoo bokk même vision nit bu vraiment bu baax la et puis am yar. Euh, tamit euh, maa ngi nuyu tamit à passage aussi mon grand frère euh, Babacar Fall. waaw vraiment Babacar aussi c' est un grand frère pour moi di nuyu aussi tamit madame Ndiaye vraiment jabaru ministre de l' intérieur de passage. comme noonu xamee Ablaye woo ma woo en personne téléphone ne ma Habib invité naa la. man na nag man na ko amoon na ay soxla yëpp yëpp moon def mais noonu laa coupé sama soxla yëpp ñëw wusi ko parce que lii ngay def nii lii la président soxla parce que lii mooy action ñu war a bàyyi coow bi liggéey parce que population bi yàgg na si nax comme ni ñu koy toujours di waxee euh, leket euh, bay naxut bay il faut que chacun vraiment s'y imprégner moo tax man tey ma ñu ànd ak moom di liggéey parce que li mu def nii ñu ñëpp gis ngeen ko man moom laay def Ababacar Fall moom lay def moo tax tey ma ñu tey ànd sama délégation pour ñëw tàllal leen loxo ànd décider aussi ànd ak ñoom li liggéey pour lan pour lan pour jàppale son excellence le président Macky parce que comme ni ñu koy waxee rek bu ñu xaar bu baax dañu war a nekk tamit wax na ko lu am solo président si aussi dafa tamit dool mouvement yi leen parce que tey kenn mënu dem du mouvement yi xam nañ ce qui se passe am na sax lu ñu jotoon jën xam naa duñ ko wax tey aussi devant les journalistes mooy affaire parrainage bi <laughs> am nañu si coow waxtaan. ma ne ko ñu fexe ñun mouvement yi jëbal président 65000 signature dinañ ko ko jox dans les jours à venir jot nañ si waxtaan dañ ko def bu nekk mouvement actuellement au niveau de terre vraiment ils sont en maa ngi rafet bu baax baax di ko sant di fu ma woo rek leen ak mon frère Babacar gis doomu Thiès yëpp ngi fi soxna ministre de l' madame Ndiaye ñëpp ñëw nañ teew pour rek jàppale askan wi li ni mel en tant que imam jege askan wi lan nga ciy àddu. alhamdulilah. summa euh, ngi nuyu. waa Sénégal yëpp di nuyu waa Thiès yëpp ci barab bi nga xamee ne barabu euh, xéewal la ñun dañ ci invité ñun imaam yi imaamu Thiès yëpp ñu invité ñu ci ñu ànd ak suñu mbokk imaam ak ulama yi ñu ñëw fii teew si fi ah dañ fee teew si nag xam naa ne ñun du ñuy politicien waane nag ñun tam képp politicien boo xam ne day def lu baax soo ñu ca wooyee ñu ñu bokk ak yow loolu ah lii nag ndax alxuraan moo ñu ko digal moo ne wa taawanu ala al birri wa taqwa ni ngeen di dimbalante ci lu baax te lu bon ngeen bañ ci dimbalante lii nag ki nga xam ne moo ko organisé di euh, Abdoulaye Dièye ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom doomu Thiès la Thiès gii la juddoo Thiès gii la jànge Thiès gi la yaroo Thiès gi xam na ñépp xam na sunu woy jur yi xam na képp ku baax xam na la ci Thiès te mu ngi dimbali waa Thiès kon nag kooku su wootee fokk dañuy ñëw waxuma la ak nag li mu woote li mu woote parce que nit su wootee da ngay seet la mu woote tey jii su doon sabar walla walla xii nag yu demee noonu kon duñ fi taxaw waane nag woo gi ñu fii muy ndimbalal Thiès di ndimbalal Sénégal yëpp mu woote fi woo mag woo ndaw lépp di suñu intérêt ñun waa Thiès dañoo war a dikk wuy si bi ñu dikkee it dem nañu def ay consultation ci section yu nekk ñu def suñuy euh, euh, consultation ñu jox ñu ay verre ah xam nga imaam moom day taxaw ci ci minbar di liir xutbaam ah suñu la joxee verre nag dañ lay dimbali waaw kon ñu ngi kontaan bu baax di ko ndokkeel bu baax ak mbokkam yi mu nekkal ki nga xamee ne tabaarakallaahu mooy Babacar Fall ah, di Habib suñu xarit Habib Niang ak madame njaay ñoom ñépp ñu ngi leen di ndokkeel ci wuy si bi ñu wuy si Ablaye ah, te xam ne loolu dañ koy gën a dëgëral rek won Ablaye ne ko moom mu ci yoon bu baax. dans cette école au nom de la directrice et toute son équipe pédagogique et du comité de gestion de l'école et de l'association des parents d'élèves nous remercions infiniment Dieye de ce beau geste hautement symbolique mais aussi très important pour nos enfants pour faire face aux premiers soins vraiment nous vous disons un grand merci et nous vous réitérons aussi notre engagement auprès de, de vous pour que vous puissiez apporter vraiment votre, votre appui et votre soutien à l'école. toute la communauté éducative de l'école Livocativa vous remercie et vous dit aussi que nous comptons organiser une journée de l'excellence. Et vous demandons vraiment votre appui et votre soutien. Merci. beaucoup, Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'abord, je remercie euh, l'ODAS, l'ONG partenaire représenté ici par son président Ousmane Diatta. Remercier les imams ici présents qui m'ont honoré de leur présence. Remercier également tous les responsables et leaders politiques qui sont présents ici, notamment les présidents de mouvement dont je peux citer le président Babacar Fall, qui sur les rails du développement, mais aussi le président Habib Niang, un frère et un ami du mouvement Sokholis Thiès. Mais également, je voudrais vous remercier vous les journalistes, de l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à la population thiessoise. Je remercie aussi solennellement et fraternellement ma sœur et ami Madame Ndiaye Gaye Wilane, l'épouse du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, ici présent. Un président, un ancien président américain disait qu'un citoyen modèle doit de demander ce qu'il peut faire pour sa nation et non ce, que son pays doit faire pour lui. Mmh. Sans me prévaloir d'avoir le don d'ubiquité à satisfaire tous les soient j'entends à travers cette activité apporter ce qui me semble être ma partition pour l'amélioration des conditions d'existence de la population thiessoise. Ma conviction est que je dois tout à cette région, où j'ai fait mes humanités, auxquelles je dois tout. À ma qualité de chef d'entreprise qui se veut citoyenne, vous savez que la notion de responsabilité sociétale ne saurait être un slogan, un vœu pieux, non encore moins une intention. Elle doit être, elle doit se traduire par l'impulsion des préoccupations sociales de nos concitoyens. Vous savez que le président, le président Macky Sall, soucieux du bien-être du peuple, a inscrit l'année 2018 sous le sceau du social. Le mouvement Siggi Jotna qui se veut un cadre idéal pour l'épanouissement du bien-être du peuple pour vraiment place l'humain dans un cadre de préoccupation essentiel et, et, et, majeur. Aujourd'hui, à travers cette activité, nous avons eu à faire des dons, une nous avons eu euh, vraiment à faire une visite médicale gratuite qu'on a offerte à la population thiessoise. Et cette visite, c'est une visite médicale gratuite en ophtalmologie qui est agrémentée par des dons de lunettes, mais aussi qui fait la promotion de l'acuité visuelle. Mais également des consultations en différentes maladies, comme on de citer le diabète, la tension artérielle, l'urologie et tant d'autres. Et aussi le dépistage du col de l'utérus. Donc je pense que c'est à la lumière de toute cette considération que nous avons initié cette journée de consultation gratuite pour la population thiessoise. Alors pourquoi vous euh, centre Iba pour appliquer ces journées de consultation gratuites Non, vous savez que le centre Iba Katiba, j'ai fait mes premiers pas ici. C'est l'école où j'ai fait mon élémentaire. Donc je dois tout à cette école-là. Aussi, c'est dans mon quartier. Cette école-là rappelle beaucoup de choses pour l'histoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas la première fois que nous activons au niveau de cet établissement. Nous avons eu à apporter notre soutien à tout moment. Récemment, nous avons euh, peint à apporter notre soutien à la peinture de cet établissement. Donc je pense que cette école-là nous représente quelque chose pour sur mon cursus. C'est pour justifier la présence de Mme Alou à vos côtés quand on que son mari milite euh, euh, ministre Alou Ndiaye, il m'a fait l'honneur d'une visite de, de, de, courtoisie à mon domicile. Et, cet acte qui m'a vraiment agréablement surpris et ému, Ah, avant même cet axe, j'avais eu une séance de travail avec Madame Ndiaye, Ndiaye Gay William, qui ambitionne vraiment de s'investir à Thiès pour accompagner les femmes dans la mise en œuvre de leur activité génératrice de revenus. Donc Madame Ndiaye Wilane est Elle est thiessoise, elle est originaire de Thiès. Elle a fait ses études ici. Et elle est une femme de développement qui était à l'ONG Plan. Donc son expertise, nous avons vraiment voulu son expertise qui, est vraiment porte avec la vision du mouvement Siggi la vision du mouvement Siggi Jotna, c'est-à-dire accompagner les couches les plus vulnérables. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous lui tendons la main à venir nous accompagner sur sa politique de développement qu'elle est en train de mener dans tout le territoire sénégalais. Donc là, on, on, vraiment de nouer un partenariat fort. Parce que des personnes de ce genre il faut nouer un partenariat pour, pour accompagner la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Et tout le temps, le président de la République vous le dit, vous, ne serez pas en mesure de gagner pièce sans l'unité. Et on constate qu'il n'y a aucun responsable de l'APR, mais aussi il y a Baba Karfal, et vous peinez à lancer votre mouvement euh, d'Omoutiès. Bon, vous, savez que nous sommes totalement en phase avec tous les leaders de la coalition Beno Bokoyakar. Et, et je pense que c'est peut-être par des contraintes de temps qui ne sont pas là, mais ils, avaient tous vraiment souhaité être à, mes côtés. Donc euh, aujourd'hui, je suis avec mes autres confrères des mouvements et associations de soutien de Thiès. Donc je pense qu'on euh, a toujours appelé à l'unité et au rassemblement. Et ça, nous sommes dans ce cadre unitaire et dynamique qui est pour Domou Thiès. Parce que ceux qui ne c'est parce qu'ils ils, pourraient avoir des contraintes. Mais je lance, je lance encore un appel à l'unité et aussi au rassemblement pour que Thiès soit sous le camp du président Macky

programmé de nouer un partenariat, d'accompagner les femmes au niveau de la formation pour mettre en œuvre leur, leur, leur activité de génératrice leur activité génératrice de revenus. Mais aussi pour, pour les, jeunes de caisse qui, qui, vraiment de bénéficier de la terre. Donc nous sommes, vraiment en, en phase avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour que, les jeunes soi et les femmes puissent en bénéficier. Aux États-Unis, euh, depuis près d'une décennie, qui exerce dans le social dans une proportion multidimensionnelle. Euh, ce que vous nous voyez faire ici, euh, à l'invite de mon ami et frère, euh, M. Abdoulaye Dieye, Euh, avec qui nous avons engagé euh, une certaine dynamique sociale pour impulser en tout cas un support au niveau des masses populaires, ici à et certainement un peu partout au Sénégal, parce que cela va refléter une bonne image pour les autres communautés, les autres collectivités, de pouvoir actuellement euh, euh, voir euh, ce qui se fait à pour le matérialiser dans le zone dans le contre géographique en termes de, capital humain, en termes de matériel, est-ce que nous dire ce qui a été dépensé pour les besoins de cette zone de consultation Oui, nous tournons avec un stock, euh, surtout pour les, les lunettes médicalisées, euh, un stock de euh, 10 000 paires de lunettes avec lesquelles nous euh, faisons les tournées euh, au niveau des différentes zones du Sénégal. euh, une équipe d'une quinzaine de techniciens du médical, euh, y compris des médecins, des ophtalmos, euh, des, euh, euh, des urologues, actuellement des, des, des pédiatres, des cancérologues, des diabétologues. Donc c'est toute une panoplie en tout cas de spécialistes ici présentes qui est en train d'exercer aux côtés des masses populaires que vous voyez ici être servies. Et, et, et, pour vous dire que à, à, à, nous sommes mi-chemin, je peux euh, actuellement les notes, euh, en ophtalmo, nous sommes à près de 380 patients déjà à 13 heures. Euh, euh, pour la médecine générale, nous sommes à 96 patients. Euh, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, nous sommes à 56. Euh, pour la pédiatrie. Et euh, pour l'ORL, nous sommes à 34, ce qui à dire que nous à, à de patients à mi-chemin de 606 exactement patients. Donc euh, pour, pour vous dire la demande elle est là, c'est ce qu'a compris euh, euh Abdoulaye Dieye, c'est ce qu'a compris ses amis avec euh, lesquels il travaille, par exemple M. Fall, je vois M. Nian qui à ses côtés. Madame Ndiaye, euh, tous sont réunis pour actuellement, actuellement euh, se renforcer mutuellement et essayer d'aligner des programmes pareils qui fassent un impact dans le day-to-day -day life des communautés. Euh, bonjour à tout le monde, je m'appelle Baba Garfal, donc euh, président directeur général de BF Training et président du mouvement qui est les rails du développement. Alors les mouvements sont en action, activité à Thiès, sur l'invite du président Abdoulaye Dièye de Siggi Dione, membre plateforme de Doomu Thiès. Vous êtes ici. est de vos impressions par rapport à la journée? Euh, d'abord pour commencer, je remercie tout le monde, à commencer par donc euh, euh l'Organisation africaine pour le développement académique et sport, WADA. Euh, le président Ablaye Gueye le sigi jot na donc euh, mon frère et ami Habib qui à côté qui est aussi mon jeune frère euh, ce que je peux dire c'est que moi-même en tout cas je suis impressionné je suis impressionné par des actions pareilles des actions pareilles c'est des actions qui vont directement vers les populations Et le travail réel, c'est ce que Ablaye a fait ici. Je l'ai dit tantôt, il y a peu de temps, quand on voit du concret, si on ne ferme pas les yeux, on peut qu'accepter quand même un travail bien accompli. C'est pourquoi je félicite chaleureusement mon frère et ami Ablaye et tous ses partenaires qui l'accompagnent. et que c'est un chemin bien balisé pour les autres. Les autres, comme nous tous, nous devons quand même essayer de faire tant soit peu des actions comme ça, aider les populations. Encore une fois, Ablaï, félicitations. Tu es sur la bonne voie avec donc tes partenaires et que la réalité est là. Et certainement les caméras vont en tout cas donner l'information en temps réel. Et le président de la République, tout ce qu'il veut, c'est des actions comme ça. Aller directement vers les populations. Encore une fois, félicitations et bonne continuation. Tu vois, le du mouvement Andisokoli Thiès, toujours dans les actions sociales, dans les activités à Thiès, le mouvement dernier né, mais quand même euh, qui a su euh, faire sa marque à Quelles sont vos impressions par rapport à ces journées de consultation merci de permettez-moi d'abord, avant de commencer, je me je suis le président du mouvement Ando Soxla Thiès. En même temps, je suis ingénieur géomètre à la division des affaires foncières et de lotissement. Je suis venu sur l'invitation de mon frère ami Jean euh, Gueye, que je viens de connaître. On s'est deux semaines comme ça. Et bien que nous, on a les mêmes visions, les mêmes objectifs. Notre objectif final, c'est les présents public. de commencer aussi, je vais saluer Ainsi, je salue vraiment euh, la femme du ministre de l'Intérieur, Mme Ndiaye, Mme Ndiaye, de passage. Comme vous le savez, nous tous, vraiment, je suis très ému, je suis très content vraiment d'être là. Même aujourd'hui, comme vous le savez, des activités. Aujourd'hui, j'ai supprimé toutes mes activités pour venir répondre euh, à, mon frère euh, Chabladier pour dire concrètes. Comme vous le savez, nous tous, euh, on a les mêmes visions. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous, on parle et on agit. Ça, c'est vraiment quelque chose que les Sénégalais, que les Tchessois ont vu de leur propre Comme mon frère le dit, moi, vraiment, je suis disponible d'être à d'eux pour travailler. À côté d'eux, comme vous le savez, le dernier qui, c'est le président de la République. notre vision, c'est quoi C'est élire le président de la République au premier tour de 2019.